satisfaction là pour pour joueur buy dem compétition ah, jël raay réew mi ci ci ci loxo yi ah, ah, koo xamante ni président bi lay liggéeyal waaw bon dañuy dem nag pour waaw outil waaw mais dinañ def la maximum parce que lii moom sas la quoi ci ñun. ñun tamit en tant que joueur ak staff bi am na suñu ambition dañuy dem compétition rek bon l'instant bi suñ premier objectif mooy euh, déjà génn premier tour loolu mooy suñ premier objectif après nag bon comme on dit l'appétit vient en mangeant après ñu jël match par match. kenn du dem ci compétition naan non damay toog ay premier tour yooyu noonu dañoo dem pour pour defi dara waaw dina commencer nag par génn premier tour bi waaw ba pare quoi suñu collectif mooy suñu fort quoi parce que ñun ñëpp dañoo jàppee ku nekk sa benn ku kii bu joué baax na kii bu joué baax na. suñ collectif moy suñ foi problème mental mom gaay ñoy wa rek mais ñun ni en tant que joueur xam nañ amuñu problème mental parce que masse yu bari suñ mental motax ñu gagné ko wa non lolu doon problème parce que ñun ba préparé nañ mentalement par rapport à staff bi chaque jour dañuy travailler mentalement même si entraînement en dehors d'entraînement ah.